bugguloo ko soo ko waxul ne ko sénégalais yi àndul noog yow ci li ngay doxal nii mais bugguloo ko da nga kaa la bon safaan wala boog nga bëgg mu juum juumaat encore njàmbi tey nag comme parti politique ils sont libres d'ambitionner de vendre le nombre de cartes escomptées qu'ils souhaitent loolu moom wax dëgg yàlla tuuti nañ lool si di ci àddu dans un sens où way bu ñu fonto bu ñu ki déedéet am nañ ci droit mm. waaye nag nit réalisme ak intelligence Sénégal toll na fa nga xam ni mënuñ di politique 2012 mm-hmm. ba 2024 2012 ba 2024 ñu ngi politique way parti bi foog ki président Sall lan la bugg et Malick Gakou il a ses chances ku ne sawaay am nga chance ci àdduna moom Malick Gakou Macky Sall bi nga xam ni gañe na gañewaat exploité na chance am léegi dafa war a dem organiser élection yi jàmm ak salaam Ousmane Sonko Khalifa Abacar Sall Karim Meïssa Wade. Mhm. Euh, Ndiab Bitèye keneen ak keneen. non man nekk am nga xule ka nekk am nga sa chance. àdduna li tëddee. est-ce que xam nga leen yàlla mën naa fal koo xam ni kenn xalaatu ko si àdduna. kenn foogu ko. yàlla rek xam ki nga xam ne moo la falu après. wante yàlla na falu ci condition yu baax ci jàmm ak salaam ci jàmm rek dal Sénégal ñu voté comme ni ñu yàgg voté mhm. ci ay élection yu leer nag yu honnête ñu xam ni ah diw kat moo gagné te na mu gën a rafete mhm. président Macky Sall félicité que dem ci anam yi mu gën a rafetee moo gën force man ñii nga xam ne ñooy toog di wax naan président na def troisième mandat hmm. ñëpp procureur daf leen waroo ñëpp procureur daf leen waroo ah, offense à chef de l'État président Macky Sall wax kàddoom may wax sunu baay bi mbay Ndiaye naan waaw il faut que le président se conforme à la décision du parti yéen parti boo xam ne président bee ko jiite moo ko jiite nga naan décision du parti parti boo xam ne président Macky Sall mooy wax li ngeen di def ngeen naan confi mag du jaax mag du jaaxaan di la ah, tur boppam mm, ndox mm, mm. surtout ba dee ba bon <laughs> <laughs> paasa ñu jeexal émission bi jeex na mais mënuñoo jeexal te àdduwun si kàddu yi nga xam ne le ministre bu yor wàllum euh, communication bu état bu Sénégal yëkkati na ko muy euh, Moussa Bakor am par rapport ak dérive yi nga xam ne mun nañu wax ne euh, dafa mel ni comme le président de la République Macky Sall de ses frères li nga xam ne mooy tànk tubéyam parce que le ministre mu ngi xam xamle si jury bu dimanche bu RFM que dina am benn projet de loi boo xam ne rek dinañ ko voté ngir rek sévère par rapport ak ñi nga xam ne ñooy saaga yeeg ñu surtout nit yeeg euh, si euh, les réseaux sociaux euh, voilà une loi boo xam ne personne à, à applaudir je pense. xam naa ni daal war nañu voter loi tam pour sàcc yu mag yi. <laughs> sàcc yu mag yi. les les détourneurs des deniers publics au Sénégal. xaw ma fu ñu bokk nag ak ñan lañu. mais ñi nga xam ñu leen di jiiñ. Cour des comptes of nag ak génne seen ay dossier hmm. war nañu génne projet de loi tamit pour ñoom. ah mais tamit dérive yi c'est aussi sur les réseaux sociaux. surtout danga maa laaj danga maa laaj. Ah. dérive nga wax. man na la man sàcc yu mag yi nga xam ne ñooy nërmeel réew mi di détourner sama xaalis ñoom tamit war nañoo ut loi pour ñoom. Hmm. deux poids deux mesures baaxul ci dëkk. Hmm. ñi def njombe ya mag yi tranquille ñi nekk ci réseaux sociaux yi di wax njombe yu mag yi ñi kaa def ñii ak ñii ak ñii lu tax noo def li ñu ne noonu ñoo ñooy def dérive. Mm, mais des fois sàcc yi defuñu dérive. des fois Pa aussi ñooñu dañuy nekk dans l'exagération parce que ñu jël di dem bay dugg ci vie privée dem ba di sos sa des fois. di yàq ah. de la vie euh, d'honnête jeunes femme aussi Pa Assane. là je trouve que c'est abusé. vie privée dafa sacré. waa kenn waru ci laal. tout à fait loolu moom boo. xoolee da nga maa déglu soxna si. waaw no waaw waxal waaye. vie privée ba mu jeex. jërëjëf vie privée mhm. kenn waru ko laal. waaye jàpp lan moo indi mbiram vie privée nit ñi fii ci Sénégal 2012 à 2022. Mhm. dañoo gis ne que ñu ngi ñuy déglu suñu ay téléphone foofu la ñuy njëkk a salfaañe suñu vie privée. Mhm. en identifiant nos numéros à partir de 2012 dañu dugal ci gaamu di déglu suñu ay téléphone mhm. xooli ab góor la ma ba ma neexee u ba ma demee béréb sàngam uddoxaan ñu ne sawaay dugg na fii jël téléphone déglu may téléphone ma wax ak ab xale bu jigéen ñu ne wax naa xale bu jigéen daal di def link bi ut fu nu ma sosale fu nu ma taqalee foofu la mbir mi déparé hmm. xoolin le mal il est profond mais malheureusement c'est pas de moins zéro à plus l'infini ce n'est pas parti du particulier au général hmm. c'est parti du général au particulier maanaam ca bopp bala le style de management moo faussé et moo ñu indi fii tey après vous filmez les gens à leur insu regardez les caméras qu'on a mis dans les rues de Dakar. mais c'est pour la sécurité. waay ci yoon. njàpp bi tey bu def comment bu noo def caméra yi dañu war a wax population sénégalaise ne leen eh. luy sangam ak luy sangam bërëb sangam ak bërëb sangam foofu yëpp dañ fa def ay caméra pour xool nit ñi c'est dissuasif. et c' est intéressant dans la mesure où dina tax saay-saay daal ah, attention boor yooyu naa ko moytu waaw bu ngeen ko defee ci dëkk bi yëpp yéen a ngi sécuriser waaye xulil ba ngeen ko defee in péto ñëw ci bopp koñ ñenn ñi ngeen xam ne da ngeen leen di surveiller yaay wala ñi ngeen leen di subli dóor ko fa sans wax leen ko mm. loolu loolu dugg ci vie privée jàmbur nit yi la loolu moo jur la frustration les gens qui parlent sur les dans les réseaux sociaux ñiy mer ñii saaga ak la ci des. frustration bi moo egg niveau boobu xam nga loolu nguur bu intelligent lan lay def. day jàngat ne nit ñi kat mer nañu ba àgg fii xaaral ma def luy dindi mer bi ma doxal yoon un temps soit lu parfait matut mun def lépp ba mu parfait. waaye fexe leen ba sénégalais yi gis li ngeen di def mu am njëriñ. léegi nii ci autoroute bi am na fooy toll boori Colobane da ngay seen terre bi mu la traversé dem ak ñëw. mille ak lu teg ci 37 kilomètres. loolu bonne façon liggéey la. ça frustre. c'est vrai ça révolte. tout ce qui est fait en et au et pour le plaisir de l'étranger pendant ce temps nous qui habitons ici nous suffoquons. Mhm. ngeen ne nous ne devons pas râler mais nous allons râler et on râlera encore et encore réseaux sociaux yi je puis comprendre. ñu ne nit ñi nañu dellu encore ci yenn vertu yi. Mhm. ñu wàññi wala ñu bàyyi saaga yi. surtout yàq der bi. Oh, yàq der bi non may ma rek ma wax. Mhm. ñu bàyyi saaga yi wax dëgg fa yàlla waaye kii njàmbite. Mhm. saaga nag mbiram nit la kay saaga la mu yëg bay saaga moo ko xam waa est-ce que aussi waruñu lay indi saaga yooyu ñu xool ko. donc donc par exemple ma la déggee yow da ngay cautionner les insultes. aw ah, mi sab déglu baaxul. non non man man loolu laa dégg. déedéet sab moo dama ne sab déglu baaxul dama ne ne nga man ba ma dama la ne saaga yi dañ ko war a bàyyi nanu bàyyi saaga yi dem ci ma wax ci. yiw dem ci vers des débats d'idées. sa débat d'idées yow ñi la jiite débat wu di idée wu. ñun ñun ñun ñun ñu sut parce que euh, à chaque fois. yow bala ngay sut yow bala ngay bala ngay sut sa nguur tànk. amoo loo lekk amoo loo naan naan naan ñu sut leen ci idée yow da ngaa am loo lekk bay idée yow kii war a idée idée <laughs> ah jàpp. waaw émission bi jeex na. jërëjëf. <laughs> ça a été un plaisir. alhamdulilah à la semaine prochaine. bu ko yàlla tuddee. <laughs> je suis triste quoi. je suis triste j'ai mal.